ku fi def lii ñu ndox la ba nga day bii mooy deuxième fois booy bi di ko def

li am nan koy wax dëgg dëgg dëgg li am nan koy wax dëgg dëgg dëgg dañoo war a jàppale ndawi Touba ñuy liggéey di joxe addiya ci dëkk bi fu sëñ bi wootee ñoom lañ njëkk a gis waaye gis li li lii lii daa mel ne dañ ñoo toroxal parce que tey ji képp ku xëy si amoo loo def da ngay ñëw tax ñun nag ñoo ngi ñaawlu li am fii ci marché Ocass dañ koy ñaaw maanaam du du du ay juri du ay góor parce que lu doon ay junniy personne yoo xam ne fii la ñuy nit ki boo may yàqal sax da nga ko nekk dem ñëwal nga jël sa ñii liggéey di joxe ak ñi fi nekk dàq leen a joxe ci kër sëñ bi gën leen a dàq leen a jëfe ndigal gis nga nii nii liñ liñ liñ yaakaaroon ak jëflante boobu ñun ñun duñ duñ fi ne di xeex duñ fi ne di xuloo ndigalul sëñ bi rek waaye tey ji na noo mën a na nañu nangam ñun ñu jël suñu bagage ñëw rek yor seen i lii di dóor loolu bu dul woon a ndigal dana demee na neen dana demee na neen wallaahi asim parce que lii dafa met Touba amul usine amul dara Touba ñaara fi am képp ku jige daara ja saret ngay dawali wala ngay ñëw ci marché bi fu mu mën di dóor amul usine amul dara kon léegi marché la léegi bu ñu fi lu tolloog junniy personne ñu yàqal leen fi trente minutes ah nga yàqal leen léegi fan lañ léegi xanaa loolu mooy damay toroxal ndaw yu Tuuba yi loolu léegi nag gars yi booy bii nii booy bii nii ba muy kaas ñi ko doon jàppale nan ko wax nga dëgg yaa fi nekk léegi dañ koo yërëm ñi fi doon wax naan ko yaa fi nekk yëpp dañ koo yërëm tey dañ koo jàpp di ko dóor ba ba policiers yi rawale ko taal otom otoom bi dañ koo taal jëppit yéen sénégalais yu naafeq yi bàyyi leen sénégalais yi di leen ruux man mi ba may saaga nday noonu lan ma daan def di wax lu ñaaw Adama yaa fi nekk yaa téye réew mi kenn du yow boos day néegri lom kii naa nangam nangam nangam kenn du boos Adama rek yaa wóor nangam nangam mais ba ma demee ba ca biir damaa xam ne saaga ndey amul sens saaga ndey amul njariñ du la yóbbu bu faax nekkul yoon bu baax ma bàyyi ko tout parce que ñi bu ma len toppoon ya fi nek ak ya fi nek ma ngi ci leneen fim mu ni ma ngi sama yoon bayi len ñu ne ni jey ngeen ni dof doflu Touba Serigne Mountakha ko mom Serigne Mountakha mom mom Touba Serigne Mountakha mo fi Serigne Touba ci bir Touba bu gisee lo Serigne Tou Serigne Mountakha du décider lo xamanteni baxul ci Touba lepp lu mu wax dafa fekk dafa bax ci euh, ci Touba Serigne bi du yakal ay nit di baye ak loxoy kasse yag na jël alalam di jox état pour mu ci dimbali ñi febar ñi kon koku dëkkam Touba du fa yak lo xamanteni munu ko koo Serigne Mountakha lu mu def rek amna lu tax te lu mu leen rek amna lu mu lu ko yok rew gen bayil bu Serigne bu ñu waxee ngeen ko bu Serigne muntakha digal jofe Serigne Touba tay gi bu ne woon tey jii nii sa yaay dafa wara gen Touba ba bay Fall yepp dañuy dem ci keur gené sa yaay Serigne Mountakha moy Serigne Touba ca Touba mo fi Serigne Touba ca Touba Touba titre fonce Serigne Mountakha la. ay boy yu ndaw yu réew du ngeen fi nekk di ñu yab bu leen ñu yab moo moo leen dëkk bi Baay Faal yi duñ seen morom sëriñ Mountakha duñ seen morom ñaari yoon a ngi nii boy bi saa yu Serigne Mountakha waxee day génn saa yu Serigne Mountakha waxee ba pare day génn ñaari yoon a ngi mu koy def yéen ñii seetaan bi nekkul première fois de ñaari yoon a ngi nii boy bi chaque jour bu Serigne Mountakha joxe ndigal dana am lu mu ci teg bii mooy deuxième fois boy bi di ko def. da na a réew da ngeen a yabaate seen morom nekku fi kilifa diine yi ngeen di fonto man li ma gën a bañ sama àdduna mooy kuy fonto kilifa diine Ousmane Sonko boo gisee ànduma ak moom lii moo tax dañuy saaga kilifa diine yi lima gën a bañ sama àdduna mooy kuy saaga kilifa diine yi du toroxal kilifa diine yi wala bu nu waxee nga teg ko man réew naa lool saaga naa fi ku ne kilifa diine yi dama leen a fonk du ma saaga sëriñ du ma wax lu ñaaw kilifa diine ngeen nekk ay booy réew bay bëgg a dee yéen a moom nit ñi yéen bi wax ngeen tegg ko walla ngeen koy digat sëriñ Muntaxa du seen morom Baay Faal da la doon lekk de ndax ñoom bu nu mere dégg ndax ñoom bu nu dégg yéen moy dégg ba yéen moom nit ñi Serigne Mountakha wax ngeen teg ko teg fi leneen da moom nit ñi yéen.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 moom ñoom ñëpp nangu nañu ni kii yàlla am na lum ko may ginnaaw bi mu jàngi xam-xamam ba mokkal ko moom mii di dafa jóg ngir jàppali askan wi ci lépp lu jëm ci wàllu seet wala ci wàllu ñaan ba ci wàllu xalwatu yow mi ndoxum siti sonal jàpp sa yaram di ko tàngal di la tàyyelloo ba tee laa def lu bari ci sa àdduna moo xam rab dalaa sonal yow miy góor ba tee laa am soxna yenn saa yi mu jàppale yow miy jigéen ba tee laa am borom kër dana faj lii nga xamante ni bii mooy hémorroïde moo xam bi nëbbu la wala bi feeñ bi tubaab bi tudde interne ak externe dana faj li nga xamante ni bii mooy cat ak wàllu tëju yi da ngaa tëju sa buntu wërsëg yépp tëju loo yaakaar mu tas koo digaaleel mu wor la dawal nga seeti Serigne Modou Ladiane borom jaasi ji mu jàppale la dina yëngu ci li nga xamante ni bii mooy ci wàllu bayre am na ci ay sangat yu baax baax ba ci ndomb yi nga xamee ni bii dafa ëmb kaaxaangi ak ubbeeku ak bayri waaye ak mucc yow mi nga xamante ni bii danga nga bëgg a tukki di lijjanti ay këyit mu jafe la lool ba ci yow mi nga xamante ni bii yaa nekk bitim réew bëgg dellu ci sam réew ngir mën a am ay këyit moom mi la dee boo jokkoo ak moom mu jàppale la ci yow mi am jafe-jafe jëm ci wàllu sëy maanaam da nga néew kàttan booy jote ak sa soxna da ngay gaaw a jot sa bopp dana faj feebar yii ma lay bëgg a limal yow mi diabète sonal wala tension wala hépatique A wala hépatique B ba ci nit ku paralysé moom mii de da koy faj ba mu jug doxiwaat ay soxla ba ci yow mi nga xamante ni bii ngelawu seytaane daf laa dugg yow mi am jafe-jafe jëm ci wàllu am doom fu ne dem nga fa taxul sa aajo faju benn yoon yow mi bëgg ñu yokkal la sa sàkkara moo xam da ngaa bëgg mu gën a gudd lu jëm ci wàllu faj wala ci wàllu ñaan wala ci wàllu ubbeeku ci wàllu kaaxaa ngi ba ci wàllu bayre ba ci wàllu kaaxtan jëm ci wàllu sëy ngir sa néegu sëy gën a neex ba ci yow mi nga xamante ni bii da ngaa bëgg gàllaaj gu la mën a aar ba doo dugg kaso dama ni fu ngeen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew gaaw leen ngeen jokkoo ak moom muy sëriñ Moodu Lajaan borom jaasi gi ci le 77 922 46 28 ou le 77 320 34 07 wala ngeen fekk ko fii ci Sébikotaan ci quartier Escale ngir mën a taqalikoog seen i jafe-jafe jëm ci wàllu seet wala ci wàllu faj ba ci wàllu ñaan